salaamaaleykum sama team ci la ngeen nekk mbàyyi nañ ci jàmm comme ni ñu ko yàgg di defee ak chef Aliou ci un jour une recette tey nag couscous ginaar laa leen indiloon couscous ginaar bi nag samay composants yi may soxla moo ngi nii am nañ fi suñuy ginaar bi mi ngi nii am nañ fi suñu soble bi ak nokkas bi si lii am nañ fi persil bi am nañ fi macédoine bi am nañ fi tomate bi fii am nañ fi suñu couscous léegi nag bu ko defee dañuy jublu si defar suñu couscous bi ñu kaas couscous bi léegi bu ko defee nag dañuy def tuuti diwliñ kaas ki couscous bi ñu def ci tuuti xorom ñu def ci tuuti poobar ba pimenté aussi sama gars yi bu ko defee nag feuille de rance bii ngeen di gis ni bu ngeen ko essayé di ngeen xam goût bi lan la leen di jox ci couscous bi voilà léegi nag def nañ ci benn kuddu suukar léegi bu ko defee nii mu mel nii da koy jaxase ni ba diwliñ bi ak euh, couscous bi yëpp jaxasoo ak xorom bi poobar bi feuille de rance bi mën a tas aussi ndax moom mooy génne gu couscous pus ak bi yëpp. léegi nag suñu ndox bu tàng la ñu sotti si digg bi. voilà léegi ni mel nii nag dañ koy bàyyi nii tuuti mu sekki bu ko defee en attendant le temps muy sekki waale ñu jubluwaale si ginaar gi muusalaale ko tegaale ko ci gaz bi ginaar yi muusaale léegi moom nañ ko may nii tuuti ñu ñëwaat. léegi dañuy jël tuuti ba teg si muusal bi mu bañ a jàpp. marinade bi nag am na lépp nokkas bi daanaka lañ jël defaree ko marinade am na thym am na laaj am na jinjeer am na kaani salade am na oño bi am na persil bi buñ defee nii dañuy def tuuti vinaigre pour muusal bi léegi nag dañ koy bàyyi nii nekkaale ci soos bi en attendant voilà léegi dañuy def soble bi nag léegi nag bu ko defee dañuy bàyyi soble bi ni tuuti dem tay suñu couscous bi voilà léegi bu ko defee ne dañ ciy def benn kuddu moutarde def tuuti vinaigre couscous nag boo koy lekk soble bi warul purissant dafa war a ñor laal ci tuuti ndox def ci tuuti sooba sànni ci tuuti xorom ñu ngi soble bi ni ni muy bàyyi ko nii léegi nag ñu ngeen ko gisee ni daanaka suñu soos moom pare na moom léegi dañuy dem xooli ji ginaar yi doon muusal léegi nag bu ko defee suñuy ginaar a ngi nii yéen a ngi koy gis ginaar yaa ngi nii ñor na xom dañuy seppi defee ñu jëm ko saaf. léegi nag dañuy jël cin bi def ci diwliñ ñu saaf léegi ginaar yi. voilà léegi nag ñu sepp léegi nag ni ngeen ko gisee nii ginaar yi pare na ya leen faral di jël limo bi di ci def ndax ginaar dafa am ay bagages yoo xam ne mooy loolu dafa war a saf boo defee nii ba pare fekk defar nga sa marinade bi nga xam ne moom nga war a teg ci kaw voilà mi ngi nii. marinade bi comme li ma leen si waxoon kese bu paree da ngeen jël sotti seen ginaar bi nag laaj la am kaani salade oignon vert persil chinois thym bu tooy naana ak tuuti ketchup ak poobar ak kaani. léegi nag suñuy ganaar ngi nii defar nañ ko ba pare voilà léegi nag suñu couscous tay nañ ko ba pare dañuy jël suñu macédoine bombee ko ko yéen a koy gis ni gaaw na yomb na léegi nag